asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki jaspora bi man la Barthélémy Diaz may delluwaat tey ci le vidéos de Barthélémy Diaz euh, l'officiel ñoo waxtaan si ak yenn mbokk yi bu ci njëkk ngeen may ma ma askanu Sénégal ci euh, lu fi jot a xew ci mbas bi mooy mbokk yi ak dëkkandoor yi ak xarit yi yuñ jot a ñàkk ci mbas bi di leen di jaale ñu fi jóge di leen di massawu tamit ci euh, euh, mbas bi ak tamit euh, ci dégâts yu ngeen xam ne ni mbas bi def na ko ci biir réew ak tamit ci suñu mbokk ci bitim réew di ñaan yàlla suñu borom di ko ñaan a teggil bi ngeen ma ci ñor mu am solo ci suñu bu élection locale yi ñu a am ci janvier 2022 bu ci di état du Sénégal di ñaawlu position ministère de l'Intérieur pour organiser élection parce que élection bu ngeen Sénégal day un budget bu ñuy voté ci budget bobo day am lu communication tey je à travers les canaux officiels de l'État du Sénégal je xam RTS moo journal Le Soleil je Radio Radio Sénégal état du Sénégal communiqué wul démarrage de la révision des listes électorales communiqué pour ñaax Khali, yi ñaax ndaw ñi ñu dem bindu a ci tamit moo xam ay télé privé xam journaux privés moo xam ay site internet privé L'État état doon faral di def di jënd ay publicité pour ñaax askan bi ñu bindu ji askan askan bi tey daanaka amuñu benn information ndax lan ndax état Sénégal nekkee ci organisation élection yi

que mbokk yi da que primo votant yi parce que ñoom Macky nous daf leen bëgg a xañ ñu bokk ci élection yi te si parce que nous na parce que droit de vote constitution du Sénégal moo may citoyen bu nekk constitution nee na bépp citoyen bu yàlla may 18 ans non na a am sañ-sañ mën du du yoon état bi galgal wax ku ñuy woy primo votant moy danaka yaa soga am atu voter yow danaka pour nga am carte d'identité CEDEAO yow sa boss bi dafa gratuit soxlo fay 10000 francs makay biralat kep képp ku musul am carte d'identité CEDEAO ngay primo votant nga bëgg a wuti ji carte sa carte bobu naroo ci fay deureum c'est gratuit lo nga do am moy da nga do am lu woy extrait de naissance bu amagul at ak certificat de résidence bu dépassé wul juróom benn weer moom ngay jël dem fu ñu defee carte d'identité police dem defi sa carte d'identité soo demee nag bu def sa carte d'identité nga soog a dem ci commission de révision de liste nga dem bindu wante wax ci mooy lan mooy Macky Sall 45 jours la leen may à partir de samedi dernier mooy 31 juillet ba le 14 septembre te moom Macky Sall xam na bu baax a baax que pour nga mën a jot ci benn carte d'identité fii 45 jours pour dem bindu ji day xaw a xat te bu ma koy def moom ak ministre de l'intérieur am dañ ko def ci maa tey wante kooku dinañ ci egg incha allah wante nag lu ngeen nar a rek bu bañ a euh, guddal yéen primo votant yi yéen ñu soog a am 18 ans dem leen police ngeen yóbbu extrait de naissance bu amagul at ak seen certificat de résidence bu amagul juróom benn weer ngeen dem bindu ba jot seen carte d'identité soog a dem ci commission bi bu ci des soo amoon carte d'identité nga réeral ko wala ngay wut lu ñuy wooye duplicata yow nag yow noom nga dem wuti timbre bu 10 000 francs wut extra de naissance bu dépassé wul ñetti weer ak certificat de perte nga dem defaat beneen carte soo defaatee beneen carte boobu nga soog a nag dem ci commission de révision des listes dem bindu ci parce que ñoom nguur gi nee nañu képp ku bëgg a bindu da nga nar a am carte d'identité nationale CDAO te loolu méngoowul li di constitution du Sénégal wax dinañ ci wat tamit inshallah lu jot rek yomb bu ci moy 3e cas bi moy ñu bëgg inscrire ci liste mo xam da ngeen am carte d'identité nationale da ngeen xam ni dañ ci dañ ci euh, bind que yéen bokk leen ci fichier bi wala xeetu carte bu ngeen munti am mais mu nekk carte d'identité nationale CDAO certificat de résidence ak ngeen di wut dem ci seen gox dem bindu ji euh ñentel bi moy ñu ngeen xamni ni ñu ngi dëkkoon ci benn gox mo xam yaa ngi dëkkoon ci gox bu ñuy woyé Grand Yoff le trou dem Parcelles Assainies mooy lu ñuy wooyee changement de lieu de vote kooku képp ku mu dal yow loo noonu wuti moi da ngay njëkk dem ci commission bi soo ñëwee ci commission bi mooy fu ñu bindu da ngay ñëw indaale lu ñuy wooyee certificat de résidence nga indalé tamit sa carte d'électeur bu nga yoroon nga ñëw na leen da nga tuxu si fii ñoom ñu di def lu ñuy way changement de lieu de vote euh, juromel bi moy ndaw ñu ngeen xam ni ak tamit ñen jigéen yi ak yenn sénégalais yu président Macky Sall bëggoon galgal pour ñu bañ a bokk ci élection yi mu jox leen ay carte d'identité CEDEAO ci kaw carte boobu mu daal di bindu.

ñom ñëpp dañ doon xam ne que bés bu ñuy nar a dem pour retiré seen carte bu bees dañuy daal di joxe bu màgget bi pour mën a retiré bu bees bi fu may daanelee nag mbokk yi fu may daanelee mooy ñu bëri ñu ngi laajte fan nañuy dem bindu ji commune bu nekk biir Dakar 19 communes moo fi nekk commune bu nekk la wax am na benn commission de révision des listes électorales daanaka commission boobu mën nga fa dem bindu ji mën nga fa dem retirer sa carte électeur mën nga fa dem mën nga fa dem pour changer lieu de vote gox bu nekk commune bu nekk wala ci sous-préfecture la wala ci centre socio-culturel wala ci mairie la suñ jëlee benn bërëb bu mel ni commune de mont Sacré-Cœur daanaka fu ñuy bindu ji du nekk ci sous-préfecture Almadi, Almadies du nekk ci mairie wu mont Sacré-Cœur boobaa da ngay dem ci centre socio-culturel bu nekk Liberté 4 pour bindu donc di ngeen gis yeen ñëpp liste par rapport à différentes euh, communes fu ngeen mën dem bindu ji mais ci gàttal ci commune bu nekk am sous préfecture wala centre socioculturel wala mairie bu ngeen mën dem bindu ji loolu moo en grande partie information yu ñu leen bëggoon baaxee mbokk yi lu tax ñu daal di jël suñu jot ne dañuy ak ci parce que réew mi ñoo ko bokk dañ ko doon waxtaanee dañ ko doon pencoo te lu def tey nii lii liggéeyu état du Sénégal la woon lii organisateur des élections yi la woon waa ministère de l'intérieur nous ngi may dégg direction générale des élections nous ngi may sen taxaway jekkul sen taxaway rafetul ci démocratie te kooku dañ koy ñaawlu parce que jox nañ leen budget pour ngeen organiser élection yéen da ngeen na def communication pour yégal askan wi que affaire yi commencé na bëss bi lay jeex te fi ngeen nar a jaar pour mën a ci ci euh, ci fichier bi mbokk yi euh ci fan yu néew dinañ dellu siwaat waxtaan ak yéen waxtaanaat ak yéen mbokk yi

parce que notre président Macky Sall le jot jot na te caaxaan président Macky Sall dama bëgg yow nga wax ak askanu Sénégal té nga wax leen dëgg parce que l'heure est grave est-ce que mën nga wax askanu Sénégal yow lay interpeller parce que yaay chef de l'État et vous avez toutes les informations à votre disposition est-ce que mën nga wax état du Sénégal est-ce que mën nga wax peuple sénégalais plus ou moins excusez-moi est-ce que am ben vaccin bu ñuy utiliser Sénégal bu ñuy vacciner tay mu am effet tay wala mu am effet fii ak une semaine wala est-ce que deug la am deet que vaccin buñ ko vacciner fi sénégalais non na where weer weer lëmb vaccin boobu am efficacité lutax malay ma lay laaj parce que suñu mbokk yu bëri nek ci mi te seen xam-xam demeewul noonu ci danaka ci mbas bi ñoom dañu bëgg a dem ci ay bërëb te bërëb yooyu suñ fay dem dañ fay fekkee mbo dañ fay fekk mbooloo bu takku te bëgg nañ fa dem ñoom moo xam ay xew-xewu politique moo xam ay xew-xewu euh, euh, religion moo xam ay xew-xewu sport walla sax ay xew-xewu euh, foo parce que ñu ngi ci grande vacances pour xale yi est-ce que mën nga leen wax dëgg bi ci vaccin yi pour ñoom ñu mën a xam su suñu jëlee vaccin boobu. ñaata temps lañ tok toog balaa ñu mën a am sañ-sañ dem dugg ci ay mbolo boobu mooy première question bi président Macky Sall deuxième question bu mu lay posé di la ñaax ci yar ak teggin nga wax ak Sénégalais yi est-ce que mën nga wax ak Sénégalais yi ne leen vaccin yi ñuy utiliser Sénégal est-ce que am na benn vaccin bu nga xam ne suñ ko vacciné dina am lu ñuy woy efficacité ci sa yaram fii ak juróom benn weer après ñu vacciné la daanaka ci gàttal ku fi ñaxtu tamit soo noree toog fii juróom benn weer après vaccin boobu daanaka vaccin boobu amatul efficacité est-ce que nar nga jëlaat beneen dose am déet parce que tey Israël te ñoom seen xam-xam màcc na lool ci ay anam yu bëri tey seen premier ministre moo joxe exemple jël ñetteel dose est-ce que mën nga waxtaan ak sa mbokk yi wax leen lu xew bu ci des nag président Macky Sall yàlla nag may na ma man dëkk naa tuuti États-Unis lan mën naa ko wax te mën ko cédé cigarette malboro bu ñuy États-Unis du le la ñuy tux Sénégal kooku ñëpp xam nañ ko Coca-Cola bu ñuy jaay ak bu naan États-Unis du Coca-Cola boobu la ñuy jaay Sénégal ak du moom la Sénégalais yi tamit di naan kooku ñëpp xam nañ ko président Macky Sall nga wax ñu est-ce que Johnson ak Johnson bu ñuy vacciner États-Unis est-ce que Johnson ak Johnson Bobo sont vaccinés vacciner sénégalais est-ce que mën nga communiquer ak sénégalais leur wax quelle est la fiche technique Johnson Johnson bu ñu lay jox Je may jégalu nag man doon laajte kese rek est-ce que président Macky Sall Johnson ak Johnson lu ñu lay jox est-ce que Johnson ak Johnson bu ñuy utiliser États-Unis bokk na ak Johnson ak Johnson bu ñuy utiliser fi Sénégal que nak nag fu may te bëgguma ci sori est-ce que mën wax ak sénégalais jox la fiche technique des vaccins utilisés au Sénégal buguma sori ci wax ji parce que c'est une question sensible mais les sénégalais ont le droit de savoir moo président Macky Sall ñu ngi lay ñaax nga gëna a ci taxaway bi parce que ba mbass bi sogo commencé dugg ci aduna bi dañ la jaajëfe parce que dañu waxone Sénégal ni ci bon élève yi tay Sénégal mi ngi ci ndaare te yaa ngi ne pat te lolu wax dëgg yalla jekkul ci kilifa bu ci dess nak ñu ngi jaajëfee le corps médical ñu ngi jaajëfee les services du ministère de la santé ñu ngi def seen kéem kattan wante nous avons le droit de savoir ñu ngi jaajëfee tamit le docteur Niang parce que docteur Niang lu mu wax wax dëgg yàlla soxlawul porter plainte ci dëkk bi la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu dëkk ñun ñep xam nañ ko du docteur Niang wax mo am mo am ce qu'on appelle la mafia je le pèse, je pèse tous mes mots, la mafia de la Covid-19. Du deug du Sénégalais sont nous utilisons utiliser au Sénégal ak tamit ay a ñu ngeen Sénégal jot na ci administration sénégalaise wala mu am ci réew ay Sénégal nous avons ni Nous gën a avons nous avons fait nous avons nañ nekk la faute incombe à l'État du Sénégal et en premier lieu au chef de l'État donc nag président Macky Sall ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla kattanal ci mbas bi yàlla na la yàlla suturaal ci mbas bi ndax sénégalais yi mën ci gis seen bopp wante tamit day ànd ak fulla day ànd ak fayda day ànd ak jom day ànd ak gëm yàlla te ànd tamit ak ragal yàlla di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan nag yàlla yàlla nañu yàlla teggil mbas bi te yàlla na yàlla yokk sutura Sénégal leen di gërëm leen sant mbokk yi.